jërë ngeen jëf mbokk internetu Thiès Info foo leen mën a ne ci dunia nuyu nañ leen jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd ak ngeen ànd ak ñun te nag ñu ñëw fii ci Tène Pël ci Médina Fall kenn dootul présenté nag kilifa gi nga xam ne moom lañ toogal nii muy Serigne Boubacar Faye le jeune marabout talentueux ki nga xam ni fii lay toog di faj ajo yi fu waay mën a ne ci àdduna moo xam bitim réew nga ne moo xam ci biir Afrique nga ne moo xam itam ci euh, fi nga xam ni moo di ci biir gox goxaatu Sénégal yi nga ne. saa soo ñëwee fii mu faj sa ajo tey dañu ñëwaat nag waxtaan ndax amaat na yu bees tàq yu am ci kër gi te nit ñi di ko itewoo fu nekk di jóge fu nekk ci Sénégal ak ci biti réew ñëw di ko itewoo tey yu bees yooyu leen leen bëgg a indilaat waaye bala ñuy dugg ci waxtaan wi rek ñu bàyyi leen ak Serigne Boubacar Faye mu présenté wu bu ko defee nag ñu sóobu ci waxtaan wi sëñ bi ñu ngi lay nuyu bala nga nuyu ak mbokk internet yi ñuy topp bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawma diin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 jërëjëf Serigne Boubacar fay ci présentation bu am solo boobule kon mbokk internet yi xam naa dañuy ànd ak yéen rek euh, ak Serigne Boubacar Faye ci li nga xam ne mooy miracle yi yi ko yàlla may ci wàllu ñaan yàlla defal ko ko itam muy macha allah baatin boo xam ni fu ne nit mi ngi fay jóge ci àdduna rek di ko fi sàkku si euh, Serigne Boubacar ñu gis ni euh, saa su Thiès info ñëwee ci yow rek gis lu ko gën a yéem ndax mën na ni weer yi nga xam ne moom moo paase. gis nañ loo xam ni macha allah vraiment am na daal euh, ak toppate gu am solo ci li ngay def ndax nit ñi ñu ngi koy sàkku lan mooy secret bi sëriñ bu ba Boubacar. waa secret bi mooy lu ko waral rek mooy jub te lépp looy def rek nga jiital suñu borom boo ko defee nga xam ni yow li ngay def du sa mën-mën gis nga sëriñ boo xam ne dafay nekk mu naan man maa mën ñii ci seet man maa mun gis nga ku mën doo doo doo wax lee noonu. gis nga ku mën comme nit ñi ñoo koy seedeel te tamit lu am solo bu am solo lépp looy def nga xool suñu borom boo ko defee képp koy ñaanal yàlla xam ne day gis résultat te képp koy seetal lépp loo ko waxoon dina ci teg bët. Hmm. Euh, ñu gis ni ba tey ci ci li nga xam ne yàlla may na la ko muy wàllu ñaan di loo xam ne macha allah du dugguleet ndax yàgg na ci donte xale nga mais itam mu nekk loo xam ne danga nga ko donn ndono ci mag ñi macha allah muy lu yaatu lu lu barkeel également euh, ñu gis ni euh, wàllu takk xala day nekk baat boo xam ni souvent day bari lu muy am ci suñu société te ñu gis ni itam yàlla am na lu mu la ci may euh, d'abord nan ngay détecter loolu nga xam ne mi ngi nekk benn jàngooro ci suñu biir askan te ñu ngi koy faral di nemmi ci néegu sëy nan ngay def ba détecter loolu loolu dafay yéem internet yi. waaw xam nga xala. dafa am yu garaaw yoo xam ni bi ci comme ça bu njëkk ci ay ndaal ko doon def des fois ñu def ko ci géej ci tefes géej mais léegi ci ay firgo lañ koy def waaw ci firgo lañ koy def moo tax mu doy waar nga xam ni moo moo tax comme ça am na ñoo xam ne amuñu seen sëy lu leen neex ndax takk xale yooyu xam nga bu njëkk ci ndaa ko doon def loolu comme ça buñ ko doon dindi neex naa dindi mais yi nga xam ne dañ koy def ci frigo yooyu tamit moo gën a doy waar ndax ni muy seddee noonu la say mbir di mel moo tax mu nekk lu doy waar. Mhm. waaw man nan ngay def nag yan pexe ngay def parce que defe naa amoon nga ci ay kaa bu yàggul cas yoo xam ni yàlla dimbali na la vraiment liñ di doon xaar am na situation bi rek réglé nga ko de façon vraiment très efficace Euh, liggéey bi nan la woon yaa client yooyu. waa xam nga lu ko waral day fekk ni ku xalwa comme ça ki comme ça fi ñu ko kii da ngay am foo xam ne foo fi ñu ko jaar bu booba na nga am turam am tur waajuram liggéey ko li ngay liggéey li ngay liggéey aajiwul sax nga koy jox dara mu koy kii wala mu koy am na foo koy jaar rek boo ko defee li nga xam ni moom la doon yëg loolu lay yëgaat. te lépp lu luñ ko defoon day deñ te même bu fekkee dem kooku demaat na fa pour defaat ndax da nga koy kii dindi ko ba pare nga def ci kaaraange. ba du dellu siwaat. lu ko waral comme ça boo gisee ñu ñu kii ma di ma ci sant loolu rek lu ko waral mooy am am liggéey boo xam ne liggéey bu set la xam nga liggéey bu set rek moo am solo te nit ki lépp lu ma lay wax comme sa lépp looy def rek xool suñu borom nga xam ni nit ki mënul gis nga yàlla rek maa mën lu antu moom la boo ko xamee rek képp koy defal billaahi wallaahi day gis. Mhm. gis na ni itam euh, phénomène boobu dafa commencé bari ci néegu sëy yi euh, wax nga sànq ni léeg-léeg euh, jigéen ñi dañ koy def ngir xëy na sax man naa ne jigéen wala mu ne góor maanaam société bi dañ koy def ci gàttal ngir xëy na xañ seen borom kër ni mu war a taxawee ci néegu sëyam foogoo ni loolu aussi mën naa dem ba indiwaat yeneen jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama bi. waa xam nga waa loolu lépp comme saa xam nga am na bërëm kër yoo xam ne. waa am affaire nopp yi leen di def loolu mun naa dem ba indil seen fee comme ça feebar ci seen i biir ndaxte façon nopp bu ne ñu koy def ci lekk wala yeneen loolu lépp day dem ba daje ci yaram bi bu mu indi ko ay feebar fekk noob yi moo ëpp. xam nga nit ki am na noo koy noobee te doo ko doo doo nekk fii di di ko def ci lekk wala di ko def ci leneen ndax loolu mun naa indi leneen comme ça mun naa indi feebar ci biir ndax noob yi muy lekk moo tax kilifa yu bëri wérutul ñu ci bëri ay biir la ñuy jàmbat loolu lu ko waral nag ay noob moo ko waral. Euh, gis na ni aussi fële ci bitim réew daanaka ñaa nga xam ne ay doomu Sénégal lan léeg-léeg sax nit ku weex. man na gis li ngay def intéressé wu ci ndax defe naa amoon nga ci ay cas jamono bële ay nit yu weex tàll vraiment ci réewum Angleterre gis li ngay def ci internet bi jokkoog yow itam nga saafara seen seen seen jafe-jafe gis nan ko aussi ci doomu africain yi nga xam ne ñoo ne bitim réew ak fu mu mën a ne wala sax ci Afrique ñu gis ni léeg-léeg fii ngay toog ci mën naa ne salle bi ñu ne wala ci sa néeg def li ngay def ci kàttanu suñ borom mu antu ñoom ñu gis ci satisfaction gis ci résultat boo xam ne sax dafa leen di yéem ci wàllu seet euh, tey sa diggante ak waa bitim réew lan moo ci laxasu ba nu gën a marqué confiance ci yow. waa xam nga lu waral yor lu wér rek te gis nga booy seet nit ki bu ko neexal te bu ko bu ko wax loo xam ni amul li nga gis rek ngay wax loolu rek moo am solo ci seet tamit nga wax ko loo xam ni moom dina dem ba woowaat la mu ni la li nga ma waxoon gis naa ko. fan yële am na benn tubaab boo xam dama ko doon seetal kuy seetal tubaab xam nga tubaab moom du neexu la kii neexu la wax loo xam da koy gëm te barki alquraanu karim kooku dama kaa seetal billaa wala lépp lu ma ko wax dafa nekk ba xam ne ni comme ça audio yooyu moo ngi fii barki alquraanu karim dama leen ko fàttee kii mais barki Seydina Muhammad dama kaa seetal ba mu ba mu jaaxle ci boppam kuy seetal tubaab di ko jaaxal waxuma laa keneen loolu du ci du ci man du tax ma naagu ndax damaa xam ni lépp suñ boroom la suñ borom moom ma ko jagleel ndax am na koo xam ni moo fi nekkoon moo moom a ko dàkkoon anamu tey mu ci suuf kon dara jarul muy ñaaw wala na nga xam ne rek lépp lépp lu am rek suñu borom la. Mhm. lépp lu am suñu borom la kon ñu nangu li nga xam ne moo di dogalu suñu borom mooy eh, xéewal yi bari yi nekk fii ci kër gi macha allah ci fànn wu nekk rek moo xam feebar wu wolof bu ne ci sa yaram la. moo xam euh, examen booy def la ndax gis nañ ci ay résultats rek ci examen yi ñu génn moo xam itam tukki booy tukki la mu jafe yooyu yëpp am na fi fii ci kër Serigne Boubacar fay macha allah nekkul koo xam ne day làmbantu wala li muy wax xamu ko ku jàngi woon ba ñëw la macha allah wëlbatiku jàng xam-xam wëlbatiku jëlaat ndonay maamam ak yi waajuram taxawee ko fii ci teen pël ci Medina Fall di ci xéwale ku ne kon mbokk internet yi nekkul lu nuy raam-raame mais yéen a ko gis. nekkul lu nuy raay yéen a ko gis xam naa ci kanam dinañ ñëw ci numéro bi bu ko feefee ku koy soxla rek boo wootee foofu di nga ko am. Euh, sëñ Boubacar waa nga sànq ci wàllu gisaane bi xam nga boo demee bay gisaaneel ay nit yu weex ñoo xam ne macha allah seen làkk sax dëppoowut ak làkku réew mi ñuy dem bay gis ay résultats ci seen bopp te wax nga ko effectivement nit ku weex ak xet bu mu mën a bokk ci ci ci Europe rek. neexut a wax loo xam ne daal amul parce que day utiliser conscience am comme ni ko nit ku ñuul ki di utiliser mu nekk loo xam ne aussi réalité la bu am ñoom ci seen milieu euh, ngay jëflante ñoom ñuy gis ay résultat wàllu seet boobu bëgg na noo xam sëñ bu Boubacar nan lay seete ndax seet gi léeg-léeg sax dangay ngay seetal nit te doo ko laaj turam moom mi ngay seetal wala turu yaayam wala turu papaam et pourtant après ay affaires yu miraculé da ciy feeñaat loolu aussi ndax mën nga ko leeral internet yi ñu comprendre. gis nga dama lay wax ni gis nga li ngay wax bu bu fekkee seet bi ngay seet leer na jarul ngay laaj tur wala nga nga koy laaj turu turam ak turu waajuram du du tee comme ça bu fekkee mën nga li ngay def du tee li nekk ci moom lépp di ko ko wax loolu mayeb suñ borom la yàlla moo koy mooy xool ku ko neex def ci moom lu ko neex kon kenn mënu ci dara suñ borom la ndaxte gis nga dara boobu ci nekkee di gis lu ne gis nga fii façon liggéey bu ne gis naa ko fi yàlla xam na ko ci bunt bi comme ça façon liggéey bu ne teg nañ ko fi. waaw pour yàq. mais pour pour waaw pour yàq mbir mi pour yàq àdduna nit comme sa boo nekkee ci mbir ñu xam ne li ngay def dafa set dafay am ñoo xam ne dañuy taxaw pour yàq mais nan xam ne rek kenn mënul dara lu am tul moom suñ borom la. suñ borom moom moom moom la neex mu def mu def lii moom moom la neex du ci man man musuma xalaat ni dinaa dem bay def ay mbiri ñaan mais comme ko sama maam def na ko kon su ma ko defee dama kaa war a def du hasard mhm, du hasard te boo gisee ma ci am ay résultat rek lu ko waral mooy li ma nekk dama kaa xam te dama comme ça dama ciy sonn gis nga nit loo sonn billaay wallaay gis ci résultat ndax damay dem ba gannaaw Louga côté ngeer malal yooyu foofu laay jële jëlee sunguf kon liggéey bi comme saa jaral na ko kon lu am solo ba am solo nit ki bu la xasee ba jox la xaalis nu mu gis ngay waxee ci internet bi na ngal la na fekk noonu nga mel xam am na ñoo xam ne mun nga kaa gis nii muy wax ci internet nga dem ba jëflanteek moom nga jéppi ko nga ni kii ni mel ci internet bi ak ni mel ndekete bokkul. waa kon nit ki benn melo nga war a doon. benn melo dara warul changé ci yow ni nga mel rek nga war a mel mais nga mel nii ci internet bi buñ la boo demee ba ndaxte bul pour woo nit ñi nit ki du dexalee noonu gis nga nit ki lépp lu am gis nga kaptaan nit ñi nan xam nit fu mën a àgg nit moo ko fa àggale ndaxte waale mi nga xam ne day woy sax bu fekkul woon nit ñi dina comme ça bu nit ñi bu ko nit ñi wuy si woon dina bàyyi nit ñi moo ko wuy si moo tax mu continuer mm, waaw mu bàyyi ndaxte boo gisee comme ça nit que danoo wax nit nit ñi mm. ndax boo juddoo tamit nit ñi dañuy ñëw booy booy delluwaat mm. ñi dañuy ñëw dañ lay gunge boo ñëwee nit ñi ñoo lay gunge boo dellu boo boo boo boo génn àdduna nit ñi ñoo lay gunge kon nag danoo wax nit yi nit ñi kon loolu rek war naa tax nit comme sa bu ñuy xool kii dañuy wax bu ñuy xool alal yow seetal nit ñi ndaxte loolu rek moo lay may fi nga bëgg àgg nga àgg fa nit ki fu mu àgg nit ñi dal ko fa comme ça am na nit ñi fu ko teg moo tax mu àgg fa. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Wally Seck boobu ngay wax sax d'ailleurs euh, am na benn euh, accident bu mu defoon fële ca diwaanu defe naa Maroc bi muy def benn concert foofu. Euh, yàlla dogal na nag euh, xëy na amul benn gaañu gaañu boo xam ne am na gravité euh, souvent obstacle yooyu léeg-léeg day dal ku ne ci carrière kii nan nga ko comprendre soit ay accident wala ñu jékki-jékki ay feebar yu doy waar moo xam nag monde bu lu mën a ne ah, souvent ñi ne ci millier célébrité daal yooyu dañ ci xaw a nemmiku daal yooyu. jékki-jékki ñu dégg laat benn feebar wala ñu ni def na accident yéen en tant que ay gisaane borom ay gis-gis nan ngeen di comprendre des situations yooyu. parce que nit ñi dañ koy interpréter nu ne ah. hmm. am nga lu am soo gis nga boo gisee loolu. waali comme ça bàyyiwul boppam mais façon liggéey bu ne ñu ngi ko koy def. waali Seck façon liggéey bu ne bu doy waar ñu ngi ko koy def réew mi kay lu fi nekk comme ça nga wax ak nga bañ a wax. mais façon lu doy waar ñoo fi nekk moo tax ku faj fagarul jógo sa bopp ndax waal dafa comme ça war naa gën a kii kiis boppam mais ndaxte ñi ko ñi ko bëgg a daaneel bari na waa loolu lépp ay ay kii la ay xeex la moo tax nit ki boo nekkee ci àdduna danga war a am kaaraange bu doy kaaraange boo xam ni day tax lépp lu waroon na ñëw ci yow pour gàllankoor say mbir comme ça du ko gàllankoor ndax kaaraange bi nga àndal bu nit demoon yóbbu sa tur sëriñ bi sax buy commencé dina xam ne kii neexut a liggéey loolu lépp nit ki dafa war a wut kaaraange boobu loolu mooy tax fépp lépp loo dugg rek nga génn ci lépp looy lijjanti mu yomb ndax kaaraange lu ne la mën. sëriñ bi mu mel ni sànq bu nu dégloo sa kàddu gu njëkk jëm ci yow en tant que jeune marabu yàlla may la nga yëngu ci arxuraan di yëngu ci ñaan boole ko aussi ak. pajum wolof ay sunguf ay reen di ko boole aussi ak yeneen muy am ay résultat sànq wax nga ni léeg-léeg sax euh, mu mu da léeg-léeg da ngay xëy rek ubbi sa buntu kër bi yem ci ay xeetu liggéey yu doy waar nga xool ko mu nekk liggéey yoo xam ni daf la doon gàllankoor yow sa wàll bopp sa liggéey et pourtant xëy na ñiy def loolu. yaa ngi ñoom yéen bokk milieu bi bu ñu déggee li ngay wax sànq waaw sànq wax nga aussi ci côté Wally ni war naa jug ci boppam parce que ay liggéey yu doy waar gars yi ñu ngi ko koy emplacer vraiment te bu jugul ci boppam nangam nangam muy ay séance de prédication yu doy waar waaye benn esprit de jalousie bu am ci milieu célébrité moo xam marabu bu yéen wala milieu bi nga évoqué sànq euh, lan moo waral loolu. waaw da xam ni lépp fépp comme ça fépp la lu waral loolu mooy que nit ki li nga nekk bu fekkee ñëpp dañ la cee wuy si dafa am ñoo xam dañuy dem ba. dugal yenn nii comme ça añaan yoo xam ni dañuy def lu comme ça dañuy def loolu mais man lu ma lay wax rek man gis nga bu lu mel noonu su ma ko fekkee sama kii damay am lu ma bind rek aay buñ naan wa taba u lu seytaan wa man kafara suleymaan boobu aay laay bind suy ko ca lépp lu fa nekkoon day tojal noonu jour boobu loolu laa def fekk am na comme ça benn béjjén buñ defoon ci kii bi buñ ci defoon léegi ba ma ko defee lépp tojal ma dindi lépp ndaxte gis nga nit ki lépp loo mun du metti te damay wax comme saabu mun nga am kii gis nga barke rek moo am solo nit ki boo bindalum tuuti sa jox ko billaa wallaahi bu fekkee yow li nga yor dafa barkeel rek billaa wallaahi koo defal day comme ça même boo ko joxee suuf day ay aajom day faju ndaxte lu am solo ba am solo mooy set nit ki Euh, bu fekkee li ngay woote yow yaa ngi naan comme saa da ngay ñaan te comme ça koo ñaanal du gis résiltat kon da war a bàyyi ñaan bi ndax lu am solo bu am solo mooy résiltat résultat dafa am solo ndaxte mooy tax nga nga sori mooy tax nit ñi topp la ndaxte gis nga lu dul dégg du yàgg lépp loo nekk te du dégg barke alquraanu karim du yàgg man damaa xam ni képp koo xam ne mu ngi fi di ñaan te wallahi li muy nekk nekku cee dëgg billahi wallahi léegi mu bàyyi ko ndaxte dina dem ba comme ça du gisati kenn ndaxte koo doo nax nit ñaari yoon koo nax comme ça doo ko naxati lu am solo bu am ndax nit ki comme ça li may wax rek li may faral di wax nit bu nekkee ci yow ay ati at ngeen di jëflante ba léegi mu ngi yéen a ngi jëflante kon kooku am na lu mu fa gis bu fekkoon kooku naxate moo fa nekk billaay wala doo leen yàgg kon déggu rek moo am solo te déggu comme ça boo déggoo rek lépp képp koy jëflante da ngeen di yàgg. Mhm. Euh, muy lu am solo kon déggu rek am solo ñu ñëw nag taxaw ci li nga xam ne moo di néegu sëy yi wala sax euh, ñaari waxambaane mu góor ak jigéen di bëggante mais bëggante gi aussi projet de mariage moo ci war a mën a tegu mais léeg-léeg day am jafe-jafe. te yow macha allah ku la ci ku la ci yàlla may nga pour nga détecter ba xam jafe-jafe yi xam obstacle yi lan la loolu itam bëgg nañ nga ñëw ci parce que léeg-léeg nit ni la man sama jëkkër ndàngam wala xam nga sama jabar ndàngam wala man xale bi may bëgg ci koñ bi vraiment bu samay objectif atteindre dama koy jël soxna ñu jékki-jékki affaire bi yàqu wala ñu jékki-jékki néegu sëy boobu am ay jafe-jafe et yàlla may la ci parce que gis nañu aussi ay solution yoo ci teg par rapport ak say clients ak yooyu loolu kenn du ñu ko nettali dañu ko gis muy ay réalités yoo xam ne vraiment source yi fi tegee wane na ko lan mooy euh, euh, sa sa sa sa xarañteef ci wàllu woowu Boubacar. wàllu comme ça li ma lay wax rek gis nga bu fekkente gis nga nit bala nga bu ñu nit ñi woon ci yow di la seetloo man ak kii juboowunu wala danga koy xool xool ban lan mooy jàngoro bi bu fekkee déddale da ca am loxo nga xam noo koy dindee bu fekkente dan comme ça dafa am comme ça cat la rek wala xam nga cat moom lu ne lay fu ne lay dugg bu fekkee cat la dina am noo ko dindee bu fekkee liggéey la dañ dañ leen a déddale di am yoon boo ko jaar ba déddale bi ñu defoon nga dindi ko ba mu jeex taag nga def ci ñoom ñuy juboo comme ça bu fekkee daawuñu juboo sax dem nañ ba yaakaar ni duñ juboowaat nga am foo ko jaar boo foo xam ni boo ko defee incha allah ñoom dina juboo te le bu mu defoon ci seen diggante dina deñ mm-hmm. lu ko waral nag mooy na nga yor lu wër mm-hmm. te booy seet buy làmbatu mm-hmm. lépp looy wax comme ça loolu mooy tax boo génnee sarax kooku bu ko defee rek mu gis résultat boo génn boo génnoon dara boo xam ne dakaa war a def bu ko defee rek mu gis résultat ci ki muy àndal loolu nekk na seet bi nekk lu wër loolu mooy tax lépp nga gis ko Euh, kon mi ngi noonu kon mbokk internet yi rek ñu wëy ak Serigne Boubacar Faye le jeune marabout talentueux nekk fii ci teen pël ci Medina Fall wax nañ ko sànq waaye bamtuwaat ko itam ayut ndax day tax rek nit ñi euh, gën a bën a bàyyi xel Serigne Boubacar Faye euh, xam naa dañuy ñëw rek ci li nga xam ni mooy wàllu politique nga xam ngeen ni actualité politique ba léegi mi ngi des sunu gaal ndax moom itam macha allah kilifa la. te yàlla may na ko ci wàllu seet ki ñaan ak baatin waaye day suivre actualité day topp fii actualité réew mi ne moo xam ci journal yi la moo xam ci euh, fi nga xam ni foofu lay toll. Euh, sëñ Boubacar ñu génn ay élections législatives vraiment mu bari woon loolu ay werante bi ñuy waaj campagne yi ba ci même élection yi ci diggante opposition bi ak pouvoir bi yàlla dogal bi ñu demee ñii ngi naan opposition bi dina am majorité. ñii ngi naan pouvoir bi day maintenir majorité demoon nañ sax ba xalaatoon ni cohabitation dina am assemblée nationale résultat euh, commission départementaux yi génn euh, commission national fësal ni benn bokk yaakaar moo jiitu yeewi tegu ci ñu ñëw itam conseil constitutionnel confirmé lool léegi yeewi am 82 non benn am 82 yeewi am 80 bi ñu demee ba benn moment Pape Diop rejoindre Pape Diop bu bokk gis-gis rejoindre benn Bokk Yaakaar ñu am 83 députés euh, yow situation boobu nan nga ko comprendre par rapport ak yéen seen liggéey. waaw man li ma ci wax rek gis nga nit dina def ba def loo xam ne teyu ko ndax ci ci nguur gi nga gis façon yu ne la ñuy def moo tax nit dina def ba loo xam ni teyu ko daal dafa am fu ko jaar ay mystique. ndaxte nit ki boo jugul sa bopp mooy li ma lay wax dinañ la dugal foo xam ne ñëpp ñu la gëman dañ lay weddi ndaxte tey comme kii du du neex a gëmati waa du neex a gëmati te am na foo xam ne foofu fu mu toll du tayee fa fam waaw dafa am fu ñu leen di jaar moo tax. kon daal jàpp nga ni daal euh, Pape Diop mystiquement dañ ko atteindre quoi d'après li nga wax pour mu mën a rallier. am na fu ñu ko jaar am na fu ñu ko jaar. lu am solo moo ba am solo mooy tax nit ki foo toll nag di nga def ba def loo xam ni day jaaxal ñu bari day bett ñu bari te fekk am na fu la jaar ba def la ko moo tax. Mm-hmm. moom dañuy moom décision bi mu jël. intérêt bu mu ci lal nee na sax dem na ba ni du post la ci yaakaar du ay ndombay tànk da koo def ngir intérêt Sénégal yow nag yàlla may la ci wàllu ñaan ngay gis aussi yoo xam ni ñëwagul parce que am na ay gis-gis yu bari yoo fi def yoo xam ni sénégalais yi teg nañ ci seen gët. Euh, fan nga teg sëriñ bi que Pape Diop dañ koo laal Pape Diop magum politique yëpp si yàlla moo xam ne aussi yaakaar naa lu mu amatu ci politique ba léegi mënatu koo wuti parce que nekk na fi président assemblée nationale vraiment ànd ak président Ablaye Wade doon liggéey ci gouvernement am wëlbati ko aussi jiite fi Sénat ber fi li nga xam ni mooy parti politique am bokk gis-gis dem élection yi avec ses propres moyens euh, logiquement fan nga teg wax boobu sëriñ bi bëgg nañ daal nga détaillé ko nan lañ def ba atteindre ko parce que moom jàpp naa ni. Euh, comme gis-gis bi ci sénégalais yi am moom nekkatut koo xam ne day yootu daal ay ay ndombay tànk wala ay profil quoi d'après moom li mu wax. waaw li li wa comme ça boo xoolaatal wax ji comme ça yi mu doon wax li njëkk mu fay dem xoolaatal comme saa fim mu doon li doon wax ak fi mu mujjee tey boo gisee nga xam ni du neen du neen de am na fu ko jaar de waaw am na fu ko jaar de. ah comme ça am na fu ko fu ko jaar daal comme ça am mbir yoo xam dinañ ko ko def ba mu kii noonu. Hmm, mbir hmm? comme ça mbir yi def la loo xam nawtal la la ba nga def loo xam ni mënoo comme ça loo xam ni doo du tayef am nga nit ki comme sa nu ne lañ lañ koy def comme ça pour la bëggee jaar fenn. wala ñu bëgg laa am loo xam ne dañ la koy def dañ lay def loo xam ne da ngay def loo xam ne téyu ko mu indi coow fekk du tayeef am na fuñ la jaar moo tax ñu koy def. mun naa jàpp nga dañoo def ngir bëgg am macha am na fuñ ko jaar de waaw. Mhm. kon de Pape Diop moom bu fekkee mu ngi topp suñu émission Serigne Boubacar Faye ak révélation bi mu def war naa xoolaat bu baax. ndax euh, loolu moom lu mu gis la ci koo xam ni aussi day yëngu ci wàllum wàllum ñaan Euh, euh, gis na ni itam ci wàllu politique bi daal coow dafiy bari loolu euh, sëñ Boubacar naka la ñuy def na ngir xeexante bi ci place yooyu ci Sénégal parce que privilège boobu itam nit ñi dañ koy doxaale nan la ñuy def ba ba mu ba mu wàññi ko ndax jàpp naa ne yéen yéen a gën a xam askanu Sénégal ak fànn bu mën a bokk rek souvent dañuy ñëw di soxla ñu mel ni yéen ak yooyu souvent affaire yi ñu leen di exposé ak yooyu ndax doo leen dem yéen ba ci seen bopp sax ngeen tiit. waaw xam nga comme ça gis nga man am na kilifa yu bari yoo xam ni dañ may woo fële dakaar ñoo xam ne ci nguur gi la nekk di ma fa duggloo xal waaw daal di ma leen di defal ay mbir ndax ku ne ak li muy xëccoo gis nga kuy kuy xëcc kuy xëccoo dara danga am foo koy jaar ba nga xam ni li muy xëccoo ndaxte affaire bi xeexante la danga am foo koy jaar rek ba nga am li nga bëgg yow. ndaxte boo gisee boo gisee mbir mi demee nii gis nga ko jugul sa bopp comme ça defoo defoo jugul sa bopp comme ça li ngay xëccoo dañ la ci kii rek boo gisee ñu xëccante ay place loolu lu ko waral mooy dafa am ñoo xam ni façon xeex bu ne jaral na leen ko sacrifice bu bu bon bu ne buñ leen wax jaral na leen ñu def ko te gis nga affaire bi moo tax euh, ñëpp comme sa képp koo xam ne nekk nga ci post boo xam ne kii na da war a jóg sa bopp. ndax bu dul loolu ñu ngi def ay sacrifice yoo xam ni bu bu ñëwul ci yow rek si say njaboot lay ñëw moo tax nit ki lu mu mën a jóg si boppam fagaru na ko def. mais est-ce que sëñ bi bëggu place aussi wala nga bëgg ay ndombay tànk jar na loolu parce que leneen li ngay def tey bu ratee sa njaboot la jëm jaratul nga koy def. déedéet comme ça ñi ñi nga xam ne ñoom lañ koy def. a nga bu buñ yóbboo sa tur fenn di ko def loo xam ne même bu ñëwul ci yow si say njaboot lay ñëw. moo tax ma ni comme ça ñi nga xam ne ñoom lañ ñoom ñoo nekk ci post yi da nga war a jug seen bopp ndax bu dul leen di leen boo déggul ci ñoom dara nga dégg ci seen njaboot. Hmm. kon xam naa Serigne Boubacar egsi nañ ci cappaandaw émission bi ñu bàyyi la rek nga wàcc sa kàddu tàggoo ak mbokki internet yi waaye tàggoo ak sa clients yi nga xam ne fu ne leen ne ci bitim réew moo xam Amérique moo xam Océanie moo xam Afrique Europe asi Euh, fu ñu mën a nekk rek ñu ngi jokkoo yow moo xam itam ci quatorze régions yi nekk ci biir Sénégal wala sa quarante six département yi fu ne nit dafay ñëw léeg-léeg ñu taal seeni oto ñëw léeg-léeg ñu ñu dagg paas ñëw vraiment kër gi fees dellu macha allah te ku fi ñëw ab ajoom faju ci kàttanu suñu borom lan ngay tàggook sa mbokk internet yi rawatina sa client yi lay seetaan ndax yu bees tàq amaat na fi. waa di leen wax ni rek nit ki bul jékki-jékki rek wóolu ko. nga ni danga koy jox sa xaalis nit ki ngay jox xaalis danga koy xool xoolaat ko ba xam ni ban genre la ndax man tey mun naa toog fii ma nii man maay may wax nii may wax nii fekk ni ma mel ci internet bi ak ni ma mel ci suuf bokkul kon li may wax rek mooy que loolu laa leen di dénk buñ def kuñ gis rek ñu wóolu ko ndaxte adduna bi moo doy waar léegi moo tax kenn jarul wóolu da mais comme ça boo boo nee dem naa fu ne gisuma bu boobaa say mbir du mës a baax nit ki da ngay làmbatu ba xam kan moo yor say mbir ndaxte du ñàkk ni dina am koo xam ni yàlla boole na la moom mu defal nga defal ko li nga koy defal mu gis résultat waa waa di wax ni na yàlla def ci réew mi jàmm ñu am nawet bu barke barke Seydina Muhammad Mmh. numéro bi ku la soxla man laa woo. waaw 77 198 82 45. 198 82. 45. kon mbokk internet yi na nañu ci cappaandawu émission bi euh, ñu ngi doon dalal Serigne Boubacar Faye le jeune marabout talentueux macha allah nekk fii ci Tenpel ci Medina Fall euh, boo leen ko soxlaa nag woote leen ci 77 198 82 45. ma bamtuwaat ko 77 198 82 45 muy kilifa goo xam ne macha allah ndaw la waaye yàlla may na ko ci wàllu ñaan macha allah ci fànn yu bari kon képp ku ko soxla rek boo wootee ci numéro boobu ak foo mën a ne ci àdduna wala ci biir réew mi dina la wuyu te dina saafara sa soxla ndax nag numéro téléphone am nekkul numéro boo xam ni da nga koy woo doo ko jot saa soo ko woowee ak noo mën a toll noo mën a mel fu sa poos mën a toll dina la wuyu te bu leen yàlla lee dina saafara say aajo kon mbokki internet yi euh, amoon nañ mbégte bu baax dalal ko waxtaan ak moom ci fi actualité réew mi toll waaye ci barabu liggéeyam ci ni muy jëflantee ak ay client am ak yeneen yu ni laxasoo ah di leen ñaan rek euh, vraiment ngeen topp ko bu baax ndax moom kilifa la macha allah te ku yàlla may la di jaajëfal itam Ahmed Sarr mi nekkoon ci xarale gi nga xam ne foo leen mën a ne ci àdduna rek di nu gis macha allah mu def ko itam liggéey bu set bu dal. moom itam ñu ngi koy jaajëfal di jëfal mboolem équipe Thiès Info di leen jox rendez-vous ak Serigne Boubacar Faye beneen émission ak yeneen jotaay jërë ngeen jëf.